asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu ngeen bokk yi di kilifa yi fi teew maa xalaatoon ci jamono yi nu daje waxtaan wax naa ko Cheikh Bass ci fan yële waxtaan bi nag du daal eh, bëggoon nu gën a def suñ xel ak suñ yëtti ci dëkk bi ndax dëkk bi fa tabaarakallaa ñu baax ñëpp ngi fi jëm si waaye ñu bon ñëpp ngi fi jëm si loolu nag kon dana laaj taxawaay bu rëy eh, eh, bu tax eh, dëkk yi mel ni mu war a mel ci at yi ñu weesu am na sunu mbokk sunu doomi bàjjen ñu fi nekkoo moom moom Eh, amoon yitte lool sa am ñu màndal di wusite ñu bon ñi fii dugal ak ñu bon ñi nangam nangam yooyu yëpp wax dëgg yàlla góor loolu la ci woon waaye nag ci jamono yee maa ko ne daal léegi na nga tëye sa loxo na ngeen toog ndax baat de su ko bokk sécurité bi benn rek lañ mën a doon kon na nga toog daañu seet nañuy waxtaaneeg ñi nga xam ne ñoom la fa yàlla teg ci yor loolu moom loolu laa ko waxoon gannaaw bi laa doon waxtaan ak Cheikh Bass ne ko daal loolu xalaat naa ko bàyyi ko ci moom xam naa moo waral nag tey mu jàppoon bis bi moom mu war fee daje kon nag loolu rek la noo ngi ciy am cant gu rëy ci teewaay bii ngeen teew it yi ngeen am jóg gi ngeen jóg ñëw ngir loolu man noonu ci ma ngi ciy sant yàlla bu baax maa ngi ciy am mbégte di leen sant di ci gërëm kon noonu rek la yàlla def na sax. ba ci fan yu bërkaati démb rek président euh, jot na ma bi ma jotee nag wax ko nii mu daal di mu def ci itteel lool ne ma nag loolu dama koy daal di wax Moussa Fall dama ko waxee daal di dinañ dinañ dinañ si daal di jublu fekkoon na njataay bi ñu ji jiitu woon waaye fekk na loolu dugg ci biir ji lu jiitu jataay bi kon waaye yéen alaakulaa noo ko bokk. ñoo ko sëq moo fi nekk kon nun nu war a ànd euh, euh, gën a xool teg suñu bët ci dëkk bi gën a gën a def suñu yitt yi dëkk bi ba mel ba mel ni mu war a mel ni mu war a mel boroom dëkkub jaamu yàlla dong la ci biir fu mu jaamu yàlla rek fu mu jàlloo yàlla jaamu gu sel man faa yar nit ñi yar bu sel seen diggante seen borom loolu dong moo tax mu sañ ci dëkk bi fii ñëw dafa xuus ba ñëw fii am na ay fan kenn gisu ko mën a ci àll bi te loolu dong ko taxaw na jóg comme jaamoo yàlla képp eh, xam la fa yàlla eh, yar fi yar nit ñi ci yàlla eh, gindi leen ci yàlla womma leen jëme leen ci yàlla loolu dong ko fi woon loolu nag ba léegi tey tey tey tey jii lañ ko gën a bëgg dëgg la dem na bàyyi fi bàyyi bàyyil na fi loolu waaye nag itti jooyee nekk ci loola te te te te te te te gën a gën a bëgg lam fi bëggoon nag di ko gën a bëgg rek nag suñ kem kàttan eh, loolu nag eh, liy wér mooy ni ma ko waxee woon rek baat di su bokk duñ ci mën a jéeme jéem ci suñu yitte yi boobu di ci ci fajal seen bopp suñu dara loolu moom laa moom laa moom moom laa dogale ndax moom loolu ci noo ngi ci woon ñu ngi ko doon xalaat waaye loolu moom maa maa ko dogale ni baat di su ko bokk kon sécurité bi benn rek lay mën a doon kon nag loolu moo waral jataay bi nu ngeen xamee ko noonu xam ne eh, lépp lépp dëkk bi eh, bàyyee nañ leen ko leen ñoo leen ci déglu itam ngeen dimbali ci seen kéem kattan lu ngeen ci def yàlla rek ndax yàlla ngeen ko defal ndax sëñ Tuubaa yàlla rek ko fi andi woon eh, boolewul ak dara yàlla loolu kon lu fi waaye def ci lu baax yàlla nga ko defal te yàlla lay fay kon loolu rek baat yooyu kàddu yooyu rek laa bëggoon nu daje ñu eh, waxtaanee ko euh, ngeen jëlee ko ci man xam ne noonu mbir yëpp noonu rek la demee waaw daal moom mm, lépp yéene ko dëgg la yéene ko moom waaye bàyyee gën leen leen gën leen ko bàyyee waaw dinañ ci déglu itam nag waaw ci ànd ak yéen nag ci bëgg nag rek ci bëgg rek ci bëgg rek lañ ci mën am ci ànd ak yéen ci bëgg rek dëkk bi mel na war a mel ci lu baax rek nag soxlu ci dara njubadi ñu bàyyi leen xel nit ñu yàqu ñi ñu bàyyi leen xel ñu ñi nga xam ne dañuy yàq ñu bàyyi leen xel yooyu yëpp ñu ngi ñu ngi ñu ngi jëf ci dëkk bi waaw kon ngeen dimbali na ci loolu ginnaaw loolu seen seen cër la seen liggéey la te te te bëgg nañ ji bëgg nañ ko mën na koo ñàkk yéen ñi fi ne yàlla def nga xam ngeen yéen am taw fa ñëw fii ci ci sëñ si ñëw fii fa si sëñ Tuubaa euh, euh, ngeen góor ji góorgóorlu bu baax a baax lu ngeen ci def rek yàlla ngeen ko defal ndax suñ Tuubaa boolewul ak dara yàlla kon lu ngeen fi def ci lu baax rek lu baax dëkk bi lu baax dong moom lañ ko sañ ci bu mag si kon nag lu ngeen ci def ci lu baax rek yàlla ngeen ko defal yàlla leen di fay jërë ngeen jëf loolu rek ñu ngi leen sant nag bu baax a baax a baax a baax ci ci yitte ji ngeen def a xam ne nag loolu rek fi nekk alhamdulilah rabbil alamin yàlla andi leen fi fii dëkk bi lu baax dong dong dong dong dong moom moom lañ ciy bëgg duñ ci bëgg leneen moom la fi borom bëggoon te moom rek ci nekkal ko fi di ko sàmmal incha allah kon nag da eh, ngeen xam ne ku fi nekk ku fi ñëw ci yéen rek ci service bi loolu surtout dañ lay daal jàppe ne noo bokk ndey baay noo bokk liggéey bi noo bokk Sëriñ Tuubaa waaw noonu rek la dem jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf